soññi sama bopp. soññi mbooloo bi fàttali rek. Eh, eh, dëgg-dëgg sëñ bi. ak président bi ci nekk. sëñ bi bu ñuy wax ci bopp. mën naa wax ni sëñ Fallou ak sëñ Abdou Khadre ñoo gën a jege ci bokk. waaye dañoo jaay bokk jënd ko taalibe di def di taalibe yi def sëñ Fallou daan wax naan. soxna may mooy seen sëriñ wala sëñ laa ndax ñu moom ñoo mujj sëñ Tuubaa ka jàpp ko gën a ndaw muy sëb sëñ nag kon bàyyiwoo kenn ci diggante bi te boo nag bokk dong moo a jege sëñ waaye dañoo jaay lépp jënd ko ak taalibe bu dee bokk seex bi jënd bi dara waaye séddu na ci sëñ bi loo xam ne kenn séddu ko ci te ak taalibe rek ko may kon nag ku ñaan ñàkk soo jëndee am kon dañoo war a jënd mm-hmm. sëñ Tuubaa dafa lëggal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fàtte léppam jox ko boppam jox ko njabootam nafsi wa diini ma ahli wa léppam la ko jox yonent bi fay ko loo xam ni ñëpp teg nañ seen bët nam joxe woon yonent bi boppam itam Cheikh Rabat noonu la joxoon sëñ boppam ba mu defal ko lim ba defal kon nag yoon bi daal la naan ñi ku bëgg a jël na nga ci jaay képp koo xam ne dangaa liggéey sëñ Tuubaa fàtte sa bopp boo fi jógee sëñ Tuubaa danaa taxawal sa njaboot taxawal képp koo xam ne da nga fay nekk fàtte sëñ Tuubaa waaye du taxaw sa bopp taxaw sa njaboot suñ la dencee fàtte la sa njaboot la ci jox kon yàlla si yàlla musal sëñ Tuubaa bàyyiwul sa njabootam dara ko waaye ak njabootam ñekkul dara maam si am yu bàyyi béy ko dara waaye kon wane yoon rek la bu loolu jàllee itam dëkk bi dañ ko war a jox orma mhm. di ko waju joxoon mhm. di ko sëñ Tuubaa jox mhm. ndax mos bëgg dëkk fenn mos sa bëgg fanaan fenn ful Tuubaa yàlla na toog loolu ba mu jóge fii denc ko fi dañuy wàll yi bu dëkkee dëkkal bu toxoo dem nañ bay wax ni fañ ko denc ba ba fañ ko denc euh, ak fam ak fam ak fañ ko dañ fi ëpp maqaam kon Touba. am na cër bëgg. lu war a fonkale sëñ bi cër borom. ñi ci mën a jàpp nag wuyu si woon nguur gi. wasiirul daaxile. ñu wax ministre de l'intérieur. wasiirul difaa. ministre de l'armée. tijaara. ministre de commerce. ak raïs doon ci boppam. chef de l'état. kii mooy gendarme yi. kii mooy police yi. kii mooy def du wàññi seetaan gis ngeen ñoom ñëpp kon nañu dimbale bu ñu indil Tuubaa lépp ñu indi ñu ko yiw mën a lànqateg taalif yi te ñu fi indi kenn ñu waxtaan ak kilifa yi ba xam ndax kilifa dañ leen di sàmbalee seen njaboot dañ war leen koo sàmm waaye indi fi nag ñoo xam dañuy dóor nit ak di leen toroxal ak di leen xas mën naa ñàkk feebar bi ñu ko sëñ si di waxee léegi ñu ngi ko tudd fu ne xaw nag naka la demee waaye te yoon nañ fi de tari bi fëgg fëgg boo xam ne ak sa woon na tubaab ba sëñ mën taxaw wax guddi ñu bàyyi fëgg ba ñu tëjaat ko nit ñi fëggati ba jëm pale sëñ mën taxaw waxati ñu bàyyi fëgg ba buñu tëjaat nag fëggum ñetteel loolu mooy première vague ak deuxième vague muy troisième vague buñu tëjaatee dañ fëgg te buñu fëggee ubbu dañ bàdde te buñu bàddee nag dafay ëpp musiba la kon njiitu réew mi maa lay conseil nga am yërmande ci taalibe réew mi noo ko bokk ñëpp war koo defar nit ñi xiif nañ mar nañ nañ leen dimbali ci loolee bëgg nañoo liggéey amuñ jum am nañu li liggéey ba léegi jox ko ni ak jiw ko doy sakk xam na yàlla yeexal taw bi ndax nit ñi mën a am aw jiw ndax borom yërmande yàlla ko jox ñëpp am taw ñu ñu ji waaye njiitu réew moom ndax yonent bi sallallahu alayhi wa moo tax na bind ñëpp waaye yàlla koy ni muy yërmande yi bindeef yëpp wax ko itam fa bimaa rahmatin minallaahi linta lahum walaw kunta fazzan galiizal qalbi lanfaddu min hawlik am na bu ni mel kenn du la wër kenn dina ci yow Daawuda place yonent la taxawoon waaye dañu ko yaa Daawuda dañu ko innaa ja'alnaaka xaliifatan waaye fahkum bayna naas bil haqq kon nañuy àtt ci dëgg te ba ñuy àtt ci